إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له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 assalaamu aleykum jamiian wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum ngi màggal borom bi subhaanahu wa taala di ko ñaan mu defal ñu tamkiin ak nasru ak yusr di ñaan borom bi mu nangul ñu lépp lu ñu ko jaamu lépp loo xam ni njuumteel doomu aadama la ñoo ngi koy ñaan mu jéggal ñu di julli tey sëlmal ci ar rasulu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko ñaanal jàmm moom ak i sahaabaam ak taabiina lahu bi ihsaanin ila yawmi ddin danoo war a tontu ab laaj boo xam ni dafa duggoon ci question yi keroog jotoon nañoo tontu yu bari mais mu mel ni di ñëwoon ci wàllu sëy dafa itteel ñu bari ci nit ñi ñenn ñi di ci laaj maanaam lan mooy objectifu takk jabar idan mal gaaya fi ziwaaj al gaaya maanaam mooy objectifu tàkk soxna mooy lan ndax takk soxna mënta ñàkk waaye am borom kërit mënta ñàkk illa naadiran lu dul lu néew te takk soxna ak am borom kër day séddalikoo ci ñeenti kuus benn bi mooy ku góor ki ak famem muy ñaar beneen bi di ku jigéen ki ak famem muy ñaar nga boole muy ñeent kon dafa mel ni ñaari famille ñoom ñooy war a ànd pour boole ñaari nit ñu mën a ànd ngir organiser beneen famille <coughs> su al boobu walla laaj boobu góor boo ko laajoon ci nit ñi ne ko mal gaaya min az lan mooy jubluwaay ci sëy lan mooy objectifu sëy boo ko laajoon ñu bari balaa ñu la tontu danañu toog as diir xalaataat bu baax xalaat lu bari ngir bëgg a jëmmal tontu loolu idan famal gaaya min aziwaaj lan mooy jubluwaay ci sëy walla objectif boo ko laajoon ñi tane ci ñilay tontu kenn ki dana tontu ne du am sax bu la neexee nga ni ab tontu kii def leneen damay dakk jabar ngir sama yaay te loolu xam ngeen ni bëri na ci nit ñi damay takk jabar ngir sama yaay kon kooku haadihi lgaaya faatat anhu maanaam jubluwaay boobu moom moom bokkutu ci génn na parce que la tax mu takk jabar léegi li muy tekki mooy yaayam keneen ki soo ko laajoon lu tax ngay takk jabar daf la naan samay waajur dañoo bëgg ma takk soxna sama baay dafa bëgg ay sët te bu ngeen seetloo démb ci suñu dundiin nga xam ni vie sociale bi ñu doon dund takk jabar dañ ko daan imposer nit daana ñàkk a jot sax ñu def ko ndax mag ñi dafa bokkoon ci seen fortune mooy njaboot ndax dañu daan bay dañu daan sàmm te mbay ak sàmm njaboot la soxla ku la ëpp nit ëpp la alal boo demee ci dëkku àll yi ku la ëpp njaboot rek ëpp la alal ki la ëpp njaboot moo lay gën a yaatu tool moo lay ëpp lu bay lan moo tax parce que am na mbooloo mu ko dimbale moo tax léeg-léeg nga gisoon koo xam ni dañ koy dugal ci jabar sax te du jot maanaam du jot maanaam du am maturité pour yar jabar mais dañ ko ciy dugal ngir am njaboot ñu jàppale kër gi léeg-léeg nga laaj ko góor walla jigéen mu ne la man dama bëgg doom lu bëri tey ci nit ñi seen jubluwaay ci takk jabar mooy doom moo tax boo fekkee benn couple boo xam ni ñu ngi ànd te doom amut ngay tàmbale xam lan la société bii dund maanaam muy question boo xam ni ñoom ñoo koy tàmbale tontu benn couple bu sëyoon at rek nga commencé gis coow tàmbale am soxna si day commencé lan moo tee maam doom sama morom yi di ko am góor gi day commencé bind ci xelam lan moo tax mënu maam doom su ko defee nag yooyu mën na koo yóbbu ci dofloo ko dugal ko ci lu baree baree baree bare jigéen ji mën na koo dugal mu dem ba dugg ci yu baaxut ndax xam ngeen ni jigéen dafa ragal surtout nag bu amee ay goro yoo xam ne ñoom foog nañ ni say doom rek la su boobaa ndaw si dootul dund jàmm danañ ko gaaruwaale di ko sànni ay kàddu di ko miccatu di ko tiibatu su ko defee nag bu amul lu mu tontu moom mooy jubluwaayam lu mu am lépp na ko def ngir am doom dana dem ba xel mi dana dem xool lan moo tax muy dugg ci doom kon wa hadihi al masala tajidu linnas fiha madahiba shata nit ñi dañ cee ay jubluwaay yu wuute te bari lool Umar ibn Xattaab radiyallahu daf ñu jàngal benn kàddu boo xamante ni ci sëy mooy jubluwaayu sëy mu ne inni la akrahu nafsi ala ityaani imraatin rajaa an yuxrija allahu min sulbi nismatan tuwaxiduhu boo xoolee sëy ba mu jeex la tënk Umar mu man dey dama dem ba mel ni sax kuy bañ dajeeg soxna lu dul sama yaakaar ci keroog ba ñuy daje mooy ma am ci njaboot buy wéetal yàlla nismatan tuwaxidu boo seetloo waxu Umar boobu objectif yépp yëpp mooy su amee doom na doom bi nekk doom bu baax na doom bi nekk doomu islaam na doom bi nekk doomu jullit na njaboot gi nekk njabootu diine yaani iqaamatu baytil muslim ndeke kon jubluwaayu sëy mooy instauré ab kër goo xamante ni këru jullit lay doon këru jullit te pour samp këru jullit du yomb ndax yi war a daje pour mu sotti daa bari li ñu war a xaar pour mu sotti dafa bari kon algaaya hiya iqamatu baytil muslim maanaam jubluwaay ci sëy mooy samp këru diine këru jullit ci kila tarafay moo xam ci ku góor ki la ak ku jigéen gi kenn ku nekk ci ñoom ñaar da pare pour am njabootu jullit pour am njaboot buy topp yàlla pour am ay doom yu ragal yàlla waaye balaa looloo am tool bi ngeen di ruuj yéen ñaar il faut ngeen dëppoo mu doog a set su ngeen dëppoowul rek du set bu ngeen xoolee tool buñ koy ruuj la tey nekk ci mbalit ak i jàtti ak i bant ak yoo xam ne baaxul lépp dañ koo war a dajale lakk ko ba suuf si set ñu engrais ko ba mu baax ji li ñuy ji xaar borom bi wala ñu xaar mu taw ñu ji ñuy ji kon ñaar ñi kenn ku ci nekk pare nga pour defar balaa doom di ñëw léegi nag bu fekkee ñaar ñi war a tabax loolu kenn ku nekk ci ñoom ñaar comprendre projet bii ñuy dugg te xam ngeen ni mariage projet de société la du lu ndaw projet de société la parce que benn kër bu nekk ci kër yi ab société la projet de société nag étude bi du nekk étude fla fla nii rek de toog ak rax ba rek man bëgg naa rek naa takk kii naa nañ ma takk nangam toll naa ci naa ko def déedéet loolu du jubluwaay bi maanaam toll naa ci rek naa ko def te malheureusement ñu bëri tey ci ndaw ñi ñu bëri tey ci ñun noonu la ñuy seen xalaat yépp mooy jot na koo ciy wax pour jabar jot na fi muy njëkk a dellu mooy ci aadam non am na vingt ans mun a vingt cinq ans léegi ñu foog ñi takk jabar day dellu ci âge fekk ci maturité lay lay aju âge nit ki mën na manqué vingt ans bu mën a yor soxna mën na ëpp trente ans mën soxna maanaam sa âge na manqué vingt ans nga mën a yor soxna mën na ëpp trente ans te doo mën a yor soxna lan moo tax parce que projet bi ngay tëral projet bu war a réussir la pour mu réussir yi war a daje ci yow ba nga takk jabar ndax yooyu yaa ngi koy bàyyi xel bi ci jiitu mooy mën a muñ ci ku góor te mook jigéen jee ko bopp jigéen ji day mën a muñ parce que jigéen ji jamono buñ ko muuree la ko waa këram di dénk ay bàjjanam ak daam mooy boo demee muñal sëyal boo demee seeyi fa lan lay wax hmm. bul seetu ji demal nga seeyi loolu lañ daan wax kon yow ñu lay delloo ci say bàjjen sa bàjjen diw sëy na ba fi mu toll musul jël ndamal fay sa tante diw sëy ba fi mu toll musuñ koo dégg ma borom këram kon soo demee melal ni sa yaay loolu koy égal moom mooy demal muñ ba dee rek te loolu ñu la dénk dafa fekk yàllaa la ko njëkk a dénk asbir wa ma sabruka illa billah muñal parce que da dugg ci projet boo xam ne yombul te da ngeen a am ku taxaw seen ginnaaw mën a yàq lool lool lool lool góor gi bokk na ci pour ñu mën a ruuj tool bi mu nekk ku dal ku dal ginnaaw bi nga mënee muñ nga nekk ku dal ndax boo mënee muñ te daluloo ku dalul rek daa ëppal ku ëppal lu mu dugg mu yàq ëppal boobu mooy waral nga fekk ab société bu yàqu ñaar ñi ko yàqu ku nekk di rëccu ñoom ñaar ñëpp loolu lan moo koy indi al ajala yàkkamti te yàkkamti seytaane la da ngeen di jékki lu ndaw ngeen dagg ci buumu sëy bi nga xamante ni yàlla daa bëggoon ñu jokk ko waaw léegi nag ngeen dagg léegi nag buum boobu bu buum bi daggee fekk dagg bi jotu ki koy dagg daa mel rek ni ko tib bu demee ba ci yàgg yëg ni buum bii mu dagg waru woon a dagg mu commencé fu muy mujj réccu man sax xam nga vraiment bi ma koy def damaa meroon mënuma nangam nangam nangam moom lay am mbokk yi toujours kenn du kontaan kenn du kontaan di tas sa sëy loolu amul fenn kon li muy tekki mooy teey parce que da ngeen a ànd ak ku leen mag lool te bañ leen lool te xam fi muy jaar ba pare xam ni muy tegee ay pion li la ci mën a musal mooy wéeru ci yàlla mën a muñ te bañ a yàkkamti ñaareel bi wala ñetteel bi góor gi il faut mu bañ a nekk góor bu gaaw a a tontu wala gaaw a atte wala gaaw a wax dégg téll rek ne damm na il faut nga moytu parce que tey boo doon ruuj tool ngay ratoo ba àgg ci ëkk ëkk yàkkamte du ko daaneel du xam ngeen ëkk <laughs> yàkkamte du ko daaneel il faut nga jéem a gas ba jot reen yi uti daabaa daabaa wala nga uti jaasi di dóor ndànk ndànk ba mu dagg nga rocc ko teg fële loolu bokkul ak rato bi li ngeen di kërit mu ñëw loolu yomb na mais ëkk bii lu koy génne boo teeyul du sotti kon projet de société bi ñu war a taxawal entre ku góor kii ak ku jigéen kii mooy nismatan tuwaxidu llaha taala njaboot buy wéetal yàlla yàlla nañ ko yàlla defal mbokk yi njaboot buy wéetal yàlla li ki neex mooy daje àjjana nga xool sa njaboot xool say soxna xool sa njaboot yéen ñëpp ngeen dem àjjana lan moo dàq loolu ci kaw suuf waaye am ko nag melul ni jënd tàngal rek ci bitig bi mëcc sànni déedéet melul noonu de am ko moom il faut nga mëcc lu weex maanaam bénqal ngay mëcc bénqal boobu ngay mëcc muy ni mu wexee moo lay may pour nga àgg boo xoolee benn yonent ci yonent yaa ngi nii muy yàqub jàngal nañu nan lañuy defaree njaboot Ismaayil bokk wan nañu ko borom bi ne wa kaana ya'muru ahlahu bi salaat fële borom bi ne wa'mur ahlaka bis salaati wastabir alayha njaboot gi fexeel ñuy julli te nga muñ li muy tekki mooy jamono bi nga koy digle lu na nga mën a dégg lu na nga ci mën a dégg mais boo dee góor bu gaaw a gedd tey jigéen ñu bëri. boo ko seetloo ak góor ñi bëri na kuy yee jabaram julli fajar waxtu yu bari mais bu ñu xuloo rek keroog da koy jéggi dem jàkka ja julli ci loolu bëri na ay jigéen ñoo xam ne jot nañ na ko wax am na koo xam nee na ma carrément sax man ba léegi seytaane bi nekk man mooy bu ma meree soxna si du ma ko bëgg yee sax mu jaamu yàlla xam nga loolu feebar la parce que moom jàpp na ni bu yee soxna si ne ko jógal julli commencé naa juboo te moom warta juboo xam nga xam nga loolu mooy feebar boo xam yàlla ci yàlla mutal wa wallaahi non lu am la ñun ñiy toog ku wax dëgg bëri na ci ñun yoo xam ne da ngay mere soxna si téen jóg julli say rakka root si ku dem siol wala boo ko yeesoo dool tuni dool <laughs> julli bi doon la parce que wax bi doo bëgg sax mu neex tuuti balaa moo jàpp ni da nga koy neexal fekk boobu seytaane commencé lay leen a laxas yéen ñaar ñëpp buum da xam na leen buum parce que këru julli gi julli nga war a tabax yaa ngi war a tabax këru julli commencé couper courant bi nan lay sottee kon loolu il faut ñu nekk ñu ñu dala dal boo xoolee Yaqub dafa topp njabootam di defar benn par benn ba bi muy tëdd ci lalu de gëmul ni njaboot gi baax nañ loolu moo jullit noonu la war a mel toujours del yaakaar ni war na mën a yàqu borom bi ne am kuntum shuhada id hadara yaquba al id qaala li banihi ma taabuduuna min baadi lu ko njaboot gi tont qaalu naabudu ilaha wa ilaha abaika ibrahima wa ismaila wa isxaaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun xool leen ma xool leen ma njaboot gi tontu bu jub bi ñu tont ana kan ci ñun moo pareegum pour njabootam tontu ko loolu la mu laaj njabootam yëpp ñaari mbir la bi mu demee bay waaja dee lu mu wax njabootam maa ta'buduuna min ba'di xam nga sa njaboot mën nañoo jaamu yàlla sa wet ci say jabar mën nañoo julli sa wet bëri na ci jigéen yi ñu mel noonu bu fi borom kër gi nekkee bu waxtu jullee mu dem sol ji baabam defaru kàbbar julli mais bu fi sëriñ bi newul rek mu yéexee julli kon kan moo tax muy julli léegi mooy jëmmu nit ki moo tax léegi jigéen jiy julli jëmmu jëkkër ji parce que jëkkër ji du ko ci may jàmm day wax waxtu bu nekk comme day wax waxtu bu nekk nag bu fi teewee mu bañ mu wax mu julli mais bu fi jëkkër ji nekkul mu yore ay boru julli kon loolu liggéey la boo xamante ni nekkul liggéey bu ndaw mais la mu laaj doom yi lan ngeen di jaamu sama ginnaaw parce que su ma fi nekkatul gisu leen ma ah xanaa du ngeen jaamu yàlla fekk rek man maa tax su dee man maa tax kay du baax man kaana yaabudu muhammadan fa na muhammadan xat maat lu lu yàgg la kan ngeen di jaamu sama ginnaaw doom yi ne ko bàyyi ñun de danañ jaamu sa yàlla sa yàllay bàyyi Ibrahim Ismaïl Ishaq bu continué woon ñuy tudd ñuy tudd bu yàggee mu ne leen déedéet jaamootu leen yàlla mbiru aada ngeen indi mooy maam ñun loolu ñu dal topp maam rek jëm ci kaw bi ñu demee ba tudd Ibrahim. tudd Ismaayil tudd Isxaaq doog a indi tawhid ilaahan waaxidan xelam doog a dal a indi tawhid ilaahan waaxidan ne ko wa lahu dañuy wammatul borom boobu kon jamono boobu bi Yaaqub di dee xol bi sedd na buy parce que bàyyi na nismatan tuwahidullah bàyyi na njaboot goo xamante ni leer na ko ni danañu jaamu yàlla ginnaawam. waaye bàyyiwul njaboot goo xam ne dañuy xëccoo miraas ci ginnaawam bàyyiwul njaboot goo xam ne alal la ñuy xëccoo gannaaw bàyyiwul njaboot goo xamante ne boo fi jógee ñu commencé joxe courant bi di midi ak di ndagar duñ mais bàyyi na fi njaboot goo xamante ni mission mat na mooy fexe na ba defar njaboot kon bokk na ci objectif bu sëy góorgóorlu ba bañ a jur ku bon al gaaya min az ziwaaj mooy góorgóorlu ba bañ a ba bañ a ku bon yal nañ ci yàlla musal mbo mbon nag dafa am yu ci mag ñi wax yu yu doy waar dañuy wax nii mbon ci doom nàmpit la ci ndey la koy jëlee doonte wax boobu wax bu naqaree weddi la dañu dégg mag ñi naan ku ñurub jëkkër yàq doom parce que boo xoolee ñoom ci aada lañ daan waxee mais boo defu ndànk rek day delluwaat ci xaqaayiq yi day feeñaaw néew na doom ju bon lu dul nga fekk yaay ja nekkoon ku yéeme néew na donte nag règle bi mën nay changer parfois dinay changer waaye naadir lu néew la kon bokk na ci objectif u sëy bañ a jur doomi saay-saay doom joo xam ni buñ nee wuub sàcc sa doom yàlla nañ ci yàlla musal xam ne buñ nee lu rek sa doom la yàlla nañ ci yàlla musal lan moo taxoon ñu baax ñi di mucc ci loolu léeg-léeg nit posé wu question ne pourquoi doomu nuux àndul ak nuux loolu mooy li ma expliqué léegi moom mooy règle bi léeg-léeg day changé mais boo xoolee ci al mufassiruun li ñu lay nettali moom mooy nuux jabaram warta mën a jur ku baax boo jàngee alxuraan lu yàlla kaanata taxta abdayni min ibadina saalihayni fa xaanataahuma mais warkat nu muy juree ku baax kon kon nuux ci boppam doomam munta baax loolu moo tax borom bi fayee jabaram safara comme munta baax du jur lu baax yow na nga bëgg nekk ku baax bëgg jur lu baax bëgg am lu baax gaaw a tayel du sotti ci góor gi ak jigéen bi bokk na ci ñu bëri dañuy daanoo ci tànn tànn soxna lu jafe la nag lu jafe parce que bakkan da laxasu daanaka quatre-vingt-dix-neuf pour cent bakkan moo ci laxasu ci tànn moo tax foofu al amru nabawi bëri na gaa yu koy mbas <laughs> waaw parce que dafa laal bakkan te mbir bu laalee bakkan rek oh mooy ko koy day defe benn waaye dafa bëgg soxna ñu tegtal ko benn xale bu jigéen bu yaru waaye bu baax bi mu ñëwee xam ni xale bu jigéen bi jàng na yaru na ba pare ne ko man soxna moo ma yëkkati ndaw si ne ko bu mel nan bu mel nan mu ne ko ñeent critères yi bu ma ko amee takk mu ne ko ban ak ban mu ne ko xuurun maqsuuraatun fil xiyaam <laughs> mu ne ko wama saaniyatuha mu ne ko lam yatmithunna intun qablahum wala jaan mu ne ko idan fama saalis mu ne ko ka annahunna alyaquutu wal marbiyaan ndaw si ne ko idan aatini arrabia mu ne fiihinna qaasiraatu tarf ndaw si ne ko ay waay kon dafa bi ay alaali xam nga laaj lu jomb laaj lu jomb ñu bëri moo leen xañ lu yomb ngeen déggee olof laaj lu jomb day xañe lu yomb da bëgg soxna ndaw si ne ko loo bëgg mu ne ko ñeenti yi laa bëgg mu ne ko ban mu ne ko bi ci jiitu xuurun maksuuraatun fil li mu wax ni Qur'an la mais dafa am ay jubluwaay li muy wax wax bu leer la mais dafa am jubluwaay moom lañ la bëgg soxna soo xamante ni gët yi dafa yaatu te du doxi mooy xuurun maxsuuraatun fil xiyaam ndaw soo xam ni néegam rek rek lay wéet ñaareel bi mu ne ko jànq laa bëgg bu góor mu sa ko loxo lam yatmiskunna insun qablahum wala jaar bugguma jeeg jànq laa bëgg mais li muy wax ndaw si comprendre na ko mu ne ko ak ban mu ne ko ndaw su taaru lool dàq ci dëkk bi ka annahunna al yaaqutu wal marjaan xam nga mun am ci àddina kon dafa bëgg jigéen di dàq ci àddina bi bi mu ndaw si ne ko ñeenteel bi mu ne fiihinna qaasiraatu tarf ndaw soo xam ne ku ko xool du la xool day muuru muuru léppam ndaw si ne ko kon day li nga bëgg xéewal bu yàlla may àjjana dong la am fa bi ay laa laay rabbik maa tukazzibaan waa ji jóg xam ne du am jabar mu dem parce que gis nga laaj lu jomb dafa jafe yàggut benn jigéen nee na ma dafa amoon ku ñëw di ma labat bi ñu waxtaanee mu ne man dama bëgg jigéen bu dul nelaw di am rek <laughs> loolu loolu loolu wax bi mu waxee ba pare man ko waa moom xanaa moom kon sëy bi yëpp julli lay doon xam nga yooyu mooy mooy ñàkk xam te bëgg lu baax te ñàkk xam yow li ngay laaj yow leer na la ni muuroo bu dul nelaw di xiyaam rek loolu am na fenn même yonent bi da doon nelaw te moo la gën saxaaba yi dañ doon nelaw parce que am ñeent ñi ñëwoon ci kër yonent bi di laaj mbaaxam ba Aysa wax leen ko kenn ki dafa ne man dootuma nelaw damay naafila rek kenn ki ne man dootuma dog damay woor yonent bi ne leen li ngeen di wax yëpp maa leen ko dàq mais damay lekk damay naan damay woor di dog damay joteeg jigéen comme loolu bëri na ci mbir yoo xamante ni ñàkk objectivité dana tax nit ki xañ boppam loo xamante ni làmmiñam moo ko koy xañ parce que xamul li mu bëgg mbokk yi njaboot njaboot buy defaw njaboot bu mokkal alquran buy jaamu yàlla ku foog ni yomb na ay nax mi ngi bëgg dugg kon objectif sëy mooy fexe ba kër gi nekk këru jaamu yàlla waaye nekkul rek ngir qadaau shahawaat nekkul rek ngir faj bànneex maanaam qadaa shahawaatil gharidiyya bëri ci ñoo xam ni la leen yóbbu ci soxna mooy wàccee la yàlla bind ci ñoom loolu moo leen ci dugal am na nag ci góor am ci jigéen moo tax jigéen mook suuf ñoo yem baykat yi xam nañ ko jëndkat suuf yi xam nañ suuf bi la gën a baax moo gën a cher waaw wala déet suuf moom bi gën a baax moo gën a cher suuf bi nangu mbay nangu lépp boo ko bëggoon jënd boo walaatee prix yi xool leen dakaar ñëwal daaru ci bu bee ma du dëkk bëgg teere ak alma di nga xool ndax du ñu wuute ah <laughs> dañuy wuute lool lool lool lool valeurs yi yemuñu valeurs yi yemuñu léegi nag yow yaa ngi bëgg suuf su baax buy meññ meññeent bu baax bu war a yow ànd ak yow ajjana insha allah te parewoo pour sonnu loolu nan la mun a nekke kon loolu lu jafe-jafe lay doon moo tax borom bi ne wal baladu tayibu yaxruju nabaatuhu bi idni rabbi walladi xabusa illa nakida gi nga suuf bi baax day meññ meññ bu gaaw mais suuf bi baaxul du meññ kon lan mooy ndénkaaneel yonent bi ci takk jabar lu ciy ndénkaaneel benn kàddu la fas far bi diin moo xam góor ak jigéen fas far bi zaati diin jéexal jéexal borom diine borom diine dañ koy jéex boroom diine dañu koy jéex diine nag lu naqaree comprendre la ci jigéen même boroom xam-xam yi dañ ci faral di wuute parce que diine nekkul ci mazahir yi rek maanaam nekkul ci yi feeñ rek mais comme ñun ay nit lañ ci yi feeñ lañu mën a xam la mën a xam en tout cas man bokk na kàddu gi ma gën a convaincre mooy jigéen bi am diine mooy jigéen bi ànd ak ñett yi mooy am kersa am yar. dégg ndigal ñett yi bu amee ci jigéen rek boo ko joxee diine day yomb mais ñett yi bu manqué bu meloon ni sunu yaa Aysa ñu baal ma ci waxin bi dara ñaari fan lay doon mu deñ góor gi it noonu góor gi it mën na incarner diine fekk newul ci moom saxut ndax ñun ñëpp ay débutant dañuy débuté nag dañuy jéem kenn àggagut comme àggagoo nag nga bëgg a dugg ci néegu sëy il faut mu am yu des yooyu def nag il faut ñu koy baalante te ki ñu yaakaar mbaal gi jóge ci moom ci góor gi la war a doon ci góor gi la war a doon donte jigéen bi sant nañ ko muñ mais ci góor gi li ñuy xaar ci moom mooy mu nekk góor gu jéem a mat góor jéem a mat kon tànn diine tey boo seetoon ci ñun yu bari ci ñun dañoo teggi diine jëm ci bakkan tànnee diine yombut ñun suñu tànn yépp mooy taar lan moo causé loolu mooy nit dafa bëgg lu feeñ da gis ki ñu ki takk jabar jubluwaayam mooy bu ay xaritam ñëwee xam ni soxna si ku taaru mooy jubluwaayam loolu mooy doom jubluwaayam da gis ku takk jabar bëgg ngénte jot mu ànd ak moom di cenkam cenkami ci tëli bi ku mu dajal booy soxna saa ngi nii parce que xam na ni moom moom moom ku neex a présenté la nga xam loolu xam nga ceddoog démb ga la ba léegi moom la fi tubaab yi bàyyi moo tax léegi léeg nga fekk ci ñun kuy takk ngir xool li yonent bi wax rek wallahi yomb ñëpp ñoom ñoo ci ànd léegi nag yonent bi mu la joxee critères yi jigéen dinañ ko takk ci taar waaye fasfar bi zaati diin jigéen dinañ ko takk ci alal waaye fasfar bi daati diin jigéen dinañ ko takk ci askan waaye fasfar bi daati diin ñett yi daje bu ci nekk mën na fee jóge bu dee taar taar yàggut lu ñu àbb la na nag taari léegi nga xamante ni taari artificiel la nekkul taar yoo xamante ni moom taar taar yu sax la moo tax léegi jamono moo ñu teel a wan ne ndeke taar saxut taar saxut parce que bëri na ci taar yoo xamante ni dañ koo àbb dañ ko àbb suñu ko na rek nga xam ni cosaan bi du lu taaru kon nag booy tànn laa garwa amul problème mën nga teg zaatu diin jéem a wut ci ñett yi bu koy mottali comme buggoo benn bi lan mooy loolu zaatu diin bu ànd ak jaman maanaam jigéen bu am diine ba pare am taar ko kay ko kay macha allah moom rek la ñuy wax loolu la ñu bëri bëgg waaye bu fekkee jigéen ji am na diine am taar am alal loolu loolu la la chaque ni bokk moo gën parce que jigéen bi taaru ba pare am diine moo gën jigéen bi am diine te taaru mooy benn jigéen bi taaru am diine moo gën jigéen bi nga xamante ne am na diine te taaru ndax bu ñu doon njëkkante que lay raw mais jigéen bi am diine taaru am alal moo gën jigéen bi taaru am diine jigéen bi nga xam ne nag taaru na am alal am askan kooku moom la ñëpp di wër te mënuñ koo gis daa jafe kooku yàlla nga ko denc ci foofu rek la am foofu rek li waaj waxoon xuurun maxsuuraatun fil xiyaam fële rek la loolu yombut lan moo tax dinaa ci leeral tuuti mbokk yi xam ngeen taar dafa ànd ak seytaane li may wax nii nag lu jar a bàyyi xel la taar ak seytaane ñoo dëkk seytaane ñaar la alal ak taar gis nga jigéen bi taar néew na muy am diine jamono ba nit ñi am diine seytaane da ko wan boppam talu koo uti pratiquement boo seetloo jigéen ñi am taar ñi ci ëpp koo ci doon jéemu muur loolu lu jafe lay doon parce que commencé nañ ko gëm loo yaay fi dàq mën nga nekk Miss Sénégal mën nga nekk Miss marché HLM mën nga nekk Miss Grand Yoff yooyu bu commencé nekk ci moom mu commencé nag diw bu cher mu uti il faut mu jéem a génn kii bëgg a génn boo ko nee mu wutal sa yaram ndax dina ko nangu du ko nangu kon loolu moo tax taar dafa ànd ak seytaane donte nag du à 100 pour cent loolu moo tax néew na nga fekk yenn taar yu fës yi nga fekk seen borom ci diine ñu mel nañu war a mel lu jafe lay ñaareel bi taar xaritu dof la taar ak dof ñoo bokk ay àndandoo lañ xam nga lu tax jigéen bu taaroo rek xel mi day gàtt ngir ñun jigéen ñi baal ma ne jigéen bu taaroo xel mi day gàtt loo wax rek mu dellu ci taaram képp koy waxal muy dellu ci ci taaram rek daanaka dof ñu baax ma gis nga boobu jigéen am góor noonu la ko amee néew na góor bu am alal te dofu góor bu am alal bu deful ndànk rek day dof lu ne nii rek maa ko am innama utiituhu ala ilmin indi maa ko def maa ko liggéey chez moi nangam nangam kon yii ay melukaan lañ yu ànd yoo xamante ni tàqala leen lu jafe lay doon kon bis boo amee jigéen bu am diine ak nu mu mën a mel moom la la yonent bi wax léegi nag moo des sa xel ak sa bopp léegi nag yaay xool mbokk yi imaam ahmad alayhi rahmatullah imaam ahlu sunna wal jamaa dafa bëggoon soxna mu yemal benn taalibeem bu mu doon jàngal ne ko dama bëgg nga labatal ma soxna xoolal ma ko baax taalibe bi dem ay fan ñëw ne ko dugg naa ci kër sàngam fekk naa ñu nekk ñu baax am na ku ma la gisal wax ko imaam ahmad imaam ahmad ne ko wax bis sàngam ñëw fii ñu dem ma xool ñu dem ma xool bis sàngam jot waa ji ñëw imaam ahmad jàng jàngale ba dars bi pare ne ko ñëw nga mu ne waaw ñëw naa pour ñu dem nga xool ki ma la doon labatal jigéen ji mu doon biñ koy labatal jigéen ju taaru la waaye rakkam benn bët bi dafa tuuru dafa pat taaram dafa manqué ndax xam ngeen ni bët bu tuuroo rek taar wàññi ko nag bi muy tànn comme sëriñam lay tànnal mais bu bu ko tànnal lu neex a xool loolu la bëgg mais imam bi mu ñëwee war a fekk ndaw si ci néegam mu mënuñu wéet ndaw si woo rakk ji mu ñëw ñu toog ñoom ñaar ñu tugg pour imam ahmad war a xool waa ji ne ko kee laa def na yow amal xool ba jàgg ne ko kaay mu génn ci biti mu ne ko rakk ji laa bëgg mu ne ko voilà xool imam ahmad ki mu fi bàyyi bàyyi na fi jigéen ju taaru lool jël jigéen ju ñaaw jigéen ju ñaaw jooju allahu akbar moom moo jur imam abdallah ibnu ahmad ibnu hambal borom masnad wallahi moo ko jur ndax ndaw soosu ñu ne ku ñaaw la te pat moo jur imam abdallah ibnu imam ahmad mooy borom masnad nga xam ni kon salafu saalix mbir mi dañ ko doon dund nekkuloon wax ci làmmiñ nii rek mais mais dañ koo gëmoon dañ koo gëmoon tey léeg-léeg damay sama boo yi may nekk sans place léeg-léeg léeg ma leen di waxtaanal di leen poser ay question léeg-léeg ma laaj ci kenn benn laaj mais da nga yëg ni takk jabar ji àdduna dong nga ci aju àdduna dong moo ci aju wax naa ko fan yi am na ku ma ko wax ne ko man de gis naa xale bu jigéen boo xamante ni en tout day raam moom moom day raam waaye incha allah boo ko bëggee ma may la ko mais sa waay daa arrière de <laughs> <laughs> sa waay xam naa ne xam naa daa bëgg ku muy àndal di dox ci tëli bi ñee moom da ngeen di dox muy raam muy raam bi mu demee ba ma xam ne ndeke li mu doon ut du loola ma doog koo wax li ci nekk ne ko ndaw si bàyyam bëri alal nee na kii képp ku ko takk insha allah lépp loo bëgg ci kaw suuf mu defal la mooy taawam yar na ko fi mu ko war a yar mokkal na alquran am na bag mel na ni mu war a mel daf ko bëgg jëkkër boo xamante ni lu mu soxla mu dem ko <laughs> oustaz te ko mais léegi kon liñ doon xool mooy gisuñ ko tey su ma demoon dañ wax loolu amaan na nga gis koo xamante ni intéressé nu lan moo tax limaaniha limaaniha parce boo ci tuddee loolu borom mën a ma daw làqat su ma ci amee visa léegi may ko baat kon loolu moom moo tax nga xool sarafu saali nañu doon takkee soxna delluwul woon ci taar mais ci diina la dee delloo lan moo tax ndax xam nañ ni dañuy bay tool boo xam ni bu ñu ko récolté àddina lañ koy jëlee ci yàlla nañ ko yàlla loolu nag mënta ànd ak bakkan mënta ànd ak àddina beneen bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale alxaaya ci sëy waa ki am soxna nga génn sa kër yonent bi ne nga dajeeg jigéen bu la yéem yàlla moo bind yemalewut léeg-léeg nga génn dajeeg jigéen boo xamante ni sa seytaane mën na yëngatu mais yonent bi nee na dellul sa kër la yëngal sa seytaane da ko fa fekk maanaam mu mel ni sama bopp day metti mu ne la dellul ci comprimé bii naan ko boo ko naanee wér kon foofu lan la la yonent bi jàngal dafa la jàngale la mbir mi newul ci taar newul ci taar la la yëngal ñoom ñëpp ñoo ko bokkule xaw ma dégg ngeen wax ji wala déet foofu laa ci mën a yem nag waaw la yëngal ñoom ñëpp ñoo ko bokkul te bis bu loolu jotee jaamu yàlla boobu bu jotee xàmmeetuñ ci kutaar ak kutaaru mi ngi mel ni lekk bànneexu lekk làmmiñ la yem mais lu jàll boori frontière la kenn xamatu lu muy saf ñëpp ñoo ci yem wala déet tey gii kii toog fii di lekk yàppam kee de sandwich kee di kii kii yore mburum ak poosem li sama sëñ daara doon wax ah dañ ko barke waaye dàquñ ko de saf na sàpp suukar neex ba dee waaw te bi dem objectif bi benn la <laughs> nga suur ma suur rek la suñu pare duñ ko xam ne pourtant leer bi teg la tur bee ngeen rek mais mburoog mburoog suukar lu ko dàq am na waaw wala déet lu ko dàq am na kon barke lañ ko ëpp mais dàquñ ko kon mi ngi noonu kon alxaayi foofu alqadiya baada al iman billah hiya qadaau shahwa qadaau shahwa boobu nag dama bëgg a wax ni ñépp ñoo ci yem boo delloo ci taar ñetti taar moo taar moo ci jigéen bi ci jiitu zina tabiiya ba taar boo xamante ni bu naturel la bu yàlla bindee nit ki moo tax borom subhanahu wa taala lu wax wala yubdiina zinatahunna illa ma dahara minha maa dahara min ha munuñ aar parce que ki nga xamante ni taaram par exemple ci ci njool rek la ko gis nit mënta muuru ba gàtt bu dee dafa njool yow li la neex ci jigéen mooy laf boo ko ci xasee ba gis munta jil baabu ba loolu du feeñ kon illa maa zahara li mu munut dara munu ci dara naka mottalee ragal yàlla loolu tabiiya la du changé beneen bi tabiiya idaafiya am na taar boo xamante ni lu naturel la mais léeg-léeg léegi léeg mu xaw a artificiel moom mooy ban mooy wala yubdina zinatahunna illa li buulatihinna kon moom soxna si mën na bañ a sax taaru comme ni ko nit ñi yaakaaree fekk yow taar bi nga soxla woon mooy imaam ndaw su gëm yàlla nga fekk muy jàng alxuraan déggal la ay kàddu nangul la kii ku gis ci moom lu dul taar waxoolu am te borom këram it taar lay am ci moom ndax taar ba taar jeex mooy kii ku ma déggal la ku ma respecté la jigéen di gën a rafet ci àdduna boo ko yoroon déggalul dootoo gis taar yàlla bu la ko yàlla nattoo mais bis boo amee soxla mu gën a rafet ci koñ bi te baat boo wax mu saaga la xas la dootu la xeeñ jigéen leneen la lay xeeñ kon taar amut existé wul kon faz far bi zaati diin utal borom diine borom diine mooy kii rus coow borom diine mooy rus doomam bon borom diine mooy rus jëkkëram wax kàddu mu teg ci kàddu borom diine mooy toppatoo jaamu yàlla borom diine mooy ànd ak yow ci li nga bëgg parce que da ngeen a bëgg a taxawal këru tawhid te li nga ko bëggee noonu la ko bëggee kon boo jàppee mu jàpp insha allah aman na leen ngeen am ko kon boo seetloo algaaya min azziwaaj moom mooy delluwaat ci yar nit nag dinañ ko yar dinañ ko xamal loolu tamit léeg-léeg erreur la am benn xale bu jigéen ndeysaan bu mokkal alxuraan ci benn daara suñu benn waaye takk ko bi mu ko takkee comme dañ ko jàngal rek jigéen di lox jox loxo góor du jox loxo jigéen góor yooyu yooyu lañ leen xamal parce que jigéen la mu ci daara dem ba ñu may ko mbokk bi bi ndaw si ñëwee ci kër gi waa ji bu bu nee ndaw salaan ko jege goro ne ko subhanallah dafa xaraam <laughs> xam nga kii <laughs> waaw parce que yar nañ ko mais xamaguñ ko loolu mooy problème damay ne ma ah oustaz kii munut <laughs> ma ne ko wax munut ji ma maanaam yaa ngi ma ne ko oh, kii munut su ma ko jegee rek mu ne ma xaraam xam xam nga moom lañ ko jàngal foog na ni góor moom daa xaraam ci côté yëpp léeg-léeg moo tax léeg-léeg ñu bëri ñu bëri tamit dañuy bàyyi xel daara waxee noonu man ku mokkal fa gis gis nga daara ay góor a ko yore jàngale Qur'an lañ leen sant moom lañ mun mais nu jigéen di jongee ci këram nu muy def ba jëkkëram bëgg ko suñ daaree xamuñ ko de xam xamul ko kon yooyu dafay delluwaat ci yar bi nga xamante ne yaayu xale yi wala sax soxna yi seen daara yi aussi leen léeg ñuy defal xale yi cours yoo xam ne day delluwaat ci togg fóot ñu ñuy respecté loolu loolu damay wax toujours ni daara yi dañoo war a xeex lu mel noonu mais yore xale moo am 14 ans jëm kaw xamut lan muy góor xamut lan muy sëy xamaloo ko ci dara topp ko xadiis yi Abu Hurayra Anas ibnu Malik rek su amee jëkkër la tax sëy di neex bu ko xam bu yàggee ñu ne ko bon la fekk bonul kon yàlla yàlla def ci ñu dégg toog def ko ci yoon laaj bi dafa mel ni waxtu wi kii na laaj bi sunu sunu mbokk yi ko laajoon wax dëgg yàlla ñu intéressé wu lañ ci loolu parce que keroog suñu question yi biñ ci tontoo ba pare ñu bëri dañ ma jeewoon ne mu ñun daal buggoon nañ nga leeral ñu lu mel noonu waaw surtout am na ci ñoo xamante ni ñoom ñoom ñu ngi Europe loolu moom moo taxoon tey ma gisoon ne bu ñëwee jéem a tontu ci lii xas ba taaxati na li ci des nag yàlla rek moom moo mat xëy na am na ku gis sax loo xamante ni mën na mottali loolu mais bu kenn ko ne sànnee rek jubluwaay bi dem jubluwaay mooy lan. mooy góor gi na dellu ci ragal yàlla comme ni mu woote woo na jigéen ji na dellu ci ragal yàlla su problème amee nañu toog ci table rek la ko ñoom ñaar maanaam problème warta tëb rek àgg ci parce que daf ci am ci wayjur yi ñoo xamante ni yàlla dimbale na leen ñu jur doom mais xamuñu luy sëy ba léegi ki xamut sëy nag bu duggee ci régler sa sëy da koy yàq ñoom li ñu jàppee sëy daanaka moog ñeneen ñeeyam kon yow soxna si jamono bi nga nee na ngay dund baal xel bu baax baal xel bëri na ci ñoo xam ni nag dañuy nax seen bopp ci jigéen muy moytul gis nga ni góor ñi farale taar noonu la jigéen ñi farale alal donte du ahlu na danañ ko defar te loolu sa bopp ngay nax am na ku ma ko waxanteel defe naa matut deux semaines waaw mu ne am ma waa ji moom kay wax dëgg man ko ndax sunna mu ne ma noonu waaye jege na ko man ko sunna amul jege doon ko mbaa ñàkk koo doon la rek wax ma ban la ci waaw waa ji salal la mu ne ma du sama mbokk sax mais xam nga nangam ma ne ko xanaa daa am xaalis ma ne ma waaw moo am na xam ma ne ko loolu ngay labat kon dafa am loo xamante ni boo naxee sa bopp yow jigéen mucc ga da nga koy yëg yow góor it boo naxee sa bopp mucc ba da nga koy yëg kon ñun ñaar ñëpp li ñu sant mooy fas far bi daati diin li ñu la utloo ci góor mooy na nekk góor gu am diine góor gu amee diine am am jikko ju baax jeex na gis nga ki am diine am jikko ju baax ñu tàllal loxoom di ñaanaatu pour yore këram parce que xam na ni diineem nanguwut loolu diine dafay tere ab dépendant daf lay sant nga liggéeyi pour dundal sa njaboot donte sotti ngay jaay gàcce newu ci léegi nag bu fekkee ni loolu góor gi gëm na moo tax yonent bi nag yow jigéen xoolal góor gu am diine benn ñaareel bi góor gu am diine ba pare am jikko diine ak jikko bu ñu àndee borom dana uti te waa ji bu wutee la chaque yàlla dana ko jox. kon loolu moom mooy mbir mi kenn ku nekk ci ñun na delluwaat ci objectif yi ñi ko yonent bi jàngalee ñu jéema a seet ngëm gi ñuy wax ci ñun ndax dëgg la wala déet ndax dëgg la wala déet moom mooy kenn ku nekk ci ñun la koy dugal ci sëy bu mu doon bakkan mbokk yi bakkan dafa fës ba ci kaw la taxaw loolu taxaw ci kaw la bu amee ci yow cër boo moytul doo bokk ci ñi ñuy tànn kon mbir mi ngëm la pas-pas ak it endurance yal na yàlla jàmm bi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh